<laughs> incroyable mais gars yi xam naa ni mbir mi bu ngeen ci jotee di ngeen reetaan reetaan reetaan ba xaw ma nag da ngeen di ree xaw ma da ngeen di jooy mais lii da ngay ree ba tas gars yi jëmm joojee ngeen di gis ci ginnaaw mu taxaw ak femme boobee tamit yaay ji di ko fóon noonee moom lañu ñuy wax Achraf Hakimi moomee nag dañ ko doon tuumaal ay jamono ci ay affaire de yool ak ñoom seen mais tey jii jëmm jooju Achraf Hakimi soxnaam soosee mu nekkal noonu ci côté bi dafa dem tribunal ngir jéem a divorcé ak ki ñu naan Achraf Hakimi moomee waaye ci biir divorce bi da doon exiger ay mbir pour signer ay mbir mbir yan bu divorcé Achraf Hakimi da doon jéem a profité ci alalam divorcé ak moom jéem a fuqati xaaju alalu Achraf Hakimi bi loolu la bëgg a signer yamaatuñu foofu bien yi Achraf am mu aaki moo ko moom moomee soxna si ngir jël ko xam nga yàgg nañ koy gis ci joueur de foot professionnel yeeg ñoom seen di fàttali ne Achraf Hakimi actuellement il fait partie des joueurs les mieux payés fële ca Ligue 1 française di am lu plus de un million d'euros chaque mois. loolee nag mu dem tribunal ba jël décision signé loolee wax wax ceeg waa tribunal gars yi waxtaan ak Achraf Hakimi Achraf Hakimi nag d'accord waaw mais ci biir d'accord gi nekkee Achraf Hakimi ba gars yi signé affaire yi ba pare bañ demee ba ci biir tribunal ban xoolee dañoo gis ne ne Achraf Hakimi kontam dara nekku ci Achraf Hakimi amul ay bien lépp lu mu amoon ci bien ak ci alal ci turu yaayam joojee loo ko def nga xam ne moom la fóon noonee actuellement femme bi divorcé amul alal ci Achraf Hakimi lam doon yaakaar mujj koo am lan moo ko fi jar neexul ba neexul nag Hakimi vraiment xaw nag dama lay applaudir xaw ma dama lay kàjj xaw ma lu ma lay def ma leen xaar ci commentaire nan ngeen gisee ak ak i moomee ak soxna see ak dossier bi nan ngeen ko gisee waaw. yéeme na kii daal neexul ba neexul mais xool naa ba xool nekk lam doon foon yaay ji la ko yaandi fóon yëpp lu dëggu la ci moom ak mi moomee ah ca yaa jour bu foot bu nii lay mosuma koo gis incroyable <laughs> incroyable. mais gars yi xam naa ni mbir mi bu ngeen ci jotee di ngeen reetaan reetaan reetaan ba xaw ma nag da ngeen di ree xaw ma da ngeen di jooy mais lii da ngay ree ba tas gars yi jëmm joojee ngeen di gis ci ginnaaw mu taxaw ak femme boobee tamit yaay ji di ko fóon noonee moom la ñuy wax Achraf Hakimi moomee nag dañ ko doon tuumaal ay jamono ci ay affaire de viol ak ñoom seen mais tey jii jëmm jooju Achraf Hakimi soxnaam soosee mu nekkal noonu ci côté bi dafa dem tribunal ngir jéem a divorcé ak kiñ naan Achraf Hakimi moomee waaye ci biir divorce bi da doon exiger ay mbir pour signer ay mbir mbir yan bu divorcé Achraf Hakimi da doon jéem a profité ci alalam divorcé ak moom jéem a fuqati xaaju alalu Achraf Hakimi bi loolu la bëgg a signer yamaatuñu foofu bien yi Achraf am aaki moo ko moom moomee soxna si ngir jël ko xam nga yàgg nañ koy gis ci jour de foot professionnel yeeg ñoom seen di fàttali ne Achraf Hakimi actuellement il fait partie des joueurs les mieux payés fële ci Ligue 1 française di am lu plus de un million d'euros chaque mois. loolee nag mu dem tribunal ba jël des décision signé loolee wax wax ceeg waa tribunal gars yi waxtaan ak Achraf Hakimi Achraf Hakimi nag d'accord waaw mais ci biir d'accord gi nekkee Achraf Hakimi ba gars yi signé affaire yi ba pare bañ demee ba ci biir tribunal ban xoolee dañoo gis ne ne Achraf Hakimi kontam dara nekku ci Achraf Hakimi amul ay bien lépp lu mu amoon ci bien ak ci alal ci turu yaayam joojee loo ko def nga xam ne moom la fóon noo ne actuellement femme bi divorcé amul alal ci Achraf Hakimi lam doon yaakaar mujj koo am lan moo ko fi jar neexul ba neexul nag Hakimi vraiment xaw ma nag dama lay applaudir xaw ma dama lay kaj ci xaw ma lu ma lay def ba leen xaar ci commentaire nan ngeen gisee ak ak i moomee ak soxnam see ak dossier bi nan ngeen ko gisee waaw. yéeme na kii daal neexul ba neexul mais xool naa ba xool nekk lam doon fóon yaay ji la ko yaandi fóon yépp lu dëggu la ci moom ak mi moomee ah ca jour bu foot muusee nii laay musuma koo gis incroyable.